kon tey bisam bi sama doom ji rek laa fonk ñuy def tey Kazu Rajab sëñ sëñ Fallou bisu turandoom nu ñuy def. mooy sëñ wuyu wuyu nee na ndax kontaan nga si bis bi. sëñ Fallou kontaan ah, moom daa kontaan moom sëñ moom daa bëgg turandoo bi. daa bëgg turandoo macha allah. moom tey bés bi. ñu teel a gis ni daanaka li sëñ bi santaane ci nga nekk. mooy bi ma ñëwee gis naa ay wàccee kaamil. Euh, mu mel ni lépp loo xamante ne tey sëñ bi loolu la bëggoon ci bés bi rek dèjà commencé nga ko. waaw instant yi dañuy wàcc kaamir ñaan jàng ay xasida parce que noonu lañ koy defee Touba te fii noonu lañ koy defee comme li ma wax rek dama ne kuñ mënut a dem Touba it boo ñëwee Basu Maam Ndiaye la am Touba rek laa bëgg mu am fi sant sëñ sëñ sëñ Fallou Mbacké ñu durusoo xasida yi rek di euh, jàng alxuraan yi sunu paree nag daal di ñëw ci dukkat beeg yooyu waaye l'essentiel daal balaa dara xew dañuy wàcc kaamil durusu ba pare. Ah, tey dina am ay xasida jàng yooyu. yëpp lay am xasida yi yëpp dinañ ñëw incha allah ñu jàng alxuraan ñoo ngi ne ñu ngi toog di jàng alxuraan. Mhm. ñu gis ni tey wax dëgg yàlla bi ñëwee gis say xarit daanaka démb ba tey fi lañ nekk ku ci mel ni bébé Eva ba ci say wayjur ñëpp toog euh, ku mu mel ni bés bii nii tey it ñoom wax dëgg yàlla seetaanuñ la benn yoon nga wéet. waa xam nga nit day fonk ay mbokkam ak ay nitam. boo xewlee geestu gisoo say mbokk war nga tiit sa bopp te man li may wax rek duma ma jàngaani duma seeti mbokk jàmbur seetu ma borom lam bu diis ñi nga xam ne ñooy sama waajur di samay mbokk ñoom laa gën a fonk ci àddina rawatina nag sama xarit yi nga xam ne démb ba tey ñoo ngi fi démb ba tey ñu ngi ñu ngi fi bokk ak man lépp. donc tey ñu ngi si njaxas waaw nii laa def rek bàyyi Modou Kane moo fi jaar rek yónnee ma ko teg ci xaas bu baree baree baree bari ne ma maam Ndiaye ma ne ko ah, mu ne ma boo xëyee rek sol ko te des na yeneen laxasaa yu nu war a def rek ndax nun nun nun nun bisu sëñ Fallou soxla nu woo or soxla wuñu jamaa dara ay or day xaar ñun dañuy dañuy laxasaay euh, jubali si sëñ bi. kon tey ay laxasaay war nga fas yéene wàccee. laxasaay rek. waaw ah. maa laxasaay rek. guy gi fay naa la. noo maa ngi sant bu baax. maa ngi ci jàmm mais maam. Euh, di ànd ak moom di ko jege souvent bés bii bu bu bu jege see yéen nan naka ngeen ñuy composé woo ak maam. waaw yàlla rek guy gi parce que euh, bébé ba ku xam na ko sëñ Fallou ndax man sëñ Fallou rek laa bëgg waaye jëmm ji dafa nekk nit boo xam ne man boo nekkul taalibe Alaaji Fallou da nga koy bëgg far force parce que ni mu mel ci moom la maam boo koy nax sax sëñ Fallou nga koy amee. Euh, moom nag chaque jour dama koy wax daraay daray àddina boolewuñu moom sëñ Fallou moo ñu boole te sëñ Fallou mi ñu boole moo tax duñ tàqalikoo ci àddina maa ngi moom mosuñu werante barki sëriñ Fallou lu coow li di bari bari maa ngi moom mosuñoo werante kon bu dërmalee baas ndax dooma gën a foor mu ne dëpp nga jël ko tuddee sëñ Fallou kon boo dërmalee baas ne dangaa woote sant sëriñ Fallou bettut kenn te lii chaque at day gën a yokk xam nga daaw melul woon nii déwén du mel nii barki sëriñ fallu mbake chaque at day yokk man heure bi Touba la ma waroon fekk waaye sama waa ji nee naa ko bu woote woon libi dama ko fay fekk xam nga lu tax ki la def ni mu deful kenn danga koy def ni nga deful kenn dama koy wax ba àddina dégg ko gis nga man bu ma nit dee nag xam nga kan nga may naxee sama woy waajur ndax man damaa bëgg sama yaay te barki démb bi sama yaay dee anniversaire dañ ma bébé va foo nekk ma ne ko maa sama kër mu ne ma ñëwal léegi léegi ma jël taxi ñëw mu taal otoom jënd gâteau egg yëkkati alal ju bari jox ko sama yaay du xaalis bi mais geste bi parce que nit gën na maa jege defu ko kii nag Serigne Fallou moom ma booleeg moom te Serigne Fallou mi ma booleek moom moom laay ñaan mu tegal ma kii loxo barke alxuraan karim du gis lu mu ragal du gis lu ko jaaxal te jàmm rek lay am barke Seydina Mouhamed kuy néew di doole jàppale na la li muy def mu nëbb moo moo ëpp li muy def mu feeñ kon tant Serigne Fallou bii bu amee war na te man bu amee man Bébé Eva ma ne damay dem Touba kon li may wote ci Serigne Fallou dëggul kii ci njabootu Serigne Fallou la bokk est-ce que dégg nga ma barke Serigne Fallou ci njabootu Serigne Fallou la bokk. parce que li borom xol bu réy rek moo ko mën te day gën a yokk mais ñu gis ni màggal gi daanaka ñu bari dañuy xaar ku leen tuddee ñii di wut ay invité maam jël ay engagement am ni man màggal gi lépp loo xam ne rek wareef la mën naa koy defal sama bopp te it yombul jamono ji wax dëgg yàlla déggoo li ma la wax dama la kii njabootu Serigne Fallou la bokk te bu yaa ngi ko dégg boobu ba tey xanaa mu nekk ci live bi di foo woo naa diw woo naa diw woo naa diw mais da koy màggal mu neex te ci propre xaalisam lay nekk parce que mën na ko macha allah te yàlla na gën a yokk te barke alxuraan day gën a yokk place yeeg lépp day gën a yokk xol bi rafet na baax na ba pare sëriñ Fall moo ne woon ku ko lebal junni mu fay la juróomi junni sëñ Fall moom ku ko dompat da lay xët te bu la xëtee rek nga yëg ko <laughs> bu la xëtee bu la xëtee rek nga yëg ko te kii prolongé gudde sëñ Fall fi mu ne da koo ngàdd rek des na bii paa da koy bule day da bule bu ma bulee de xaw ma fu ma jëm moom damaa cof nii rek damaa cof rek xaw ma fu ma jëm bu ma bulee xaw ma fu ma jëm

Aïcha Abdoul bu toogee ne di yaayu maam Nday Savon di ko xamante ni dama ni doom ju baax nday ju baax alxuraan dafa ni wa'budullaaha wa laa tushriku bihi shay'an wa bil waalidayni ihsaanan kon yaayu nday bu toogee nii li sunu yaay yaay li lépp yow la may na ma ñëw lii yëpp yàlla ndax tey alxuraan dafa nii yaay ju baax muy jur doom ju baax maam Ndiaye tey ku ne bëgg na koo jur ku ne bëgg na koo jur maa la ko wax ku baax ci réew mi ku am cër ci réew mi bëgg na jur maam Ndiaye nii ndax jigéen ju mën góor la di koo xamante ni empreinte marqué na ko ci réew mi dafa war ni xale yi affaire bi liggéey gëm sa bopp la loolu la wane. maam Ndiaye dafa ñëw fekk fi nit ñi ne leen lii gëm sa bopp la écarté boppam ba ñëpp xam ko waaye mu takku ci lu jub na ndax léeg-léeg nga écarté sa bopp ñëpp xam la fekk te lañ la xam jugul waaye léeg-léeg nga écarté sa bopp teg sa bopp te lañ la xam dafa jub lii lépp yow gis nga bis bi tey yow la maam Ndiaye xam nga kañ lay am bis bu demee ba am doom doom di taxaw di def bis lu mel nii ci boobaa te lu mel nii bu ko defee waaye juróom toog day bëgg barke bi te barke bi dafay bëgg mu moo tax mu ne papa man kat doom kenn du laal lenn lu dul yow boo ko laalee ba nopp kon fa tubaarakallaahu lii mu la ubbee sa njiglaay lii mu la ubbee yàlla na doon xéewal ci yow lii mu la ubbee yàlla na doon barke ci yow lii mu la ubbee yàlla na doon sutura ci lii mu la ubbee yàlla na doon kattan ci yow waaye na doon wér ci yow yàlla na doon gudd fan ci yow ak ñi nga àndal ak sa ndey kon fa tabaarakallaahu ne ñëpp xewlu nga xam ne maam Ndiaye ak xewle te maam Ndiaye bu xewlee ñëpp wuy si ko kon yàlla yàlla barkeel lépp Issa kàddu gaa ngi noonu. daa am kilifa bu ma bëgg bu ma bëgg a présenté Serigne Modou Khari yàlla baax mi nga xamante moo bi Serigne Modou Khari mi nga xamante ni yàlla baax moom mi nga xamante moo ñëw jàng alxuraan bi di kilifa di imam.